oui c'est-à-dire que ñii ngeen juboolul principalement principal bi euh, président Macky Sall la war a nekk secondaire parce que a été premier ministre du Sénégal et vous pensez dans votre tête que ñun juboo nañu ak Macky non c'est une question si vous cautionnez ça. vous n'avez pas vous n'avez pas. ah ok d'accord vous avez posé une question nous n'avons nous ne sommes ni de près ni de loin mêlés. à ce que fait le président. mais est-ce que la démarche wane na ko est démarche oui démarche bi mooy le fait que ngeen recuser benn benn nit bu entamé un combat de principe. mais troisième mandat au lieu ñu wax ci loolu ngeen ngeen. nekk ci am mais mais Mohamed je vous dis que notre li le constant que ñun dans une table de négociation c'est pas Aminata Touré une mère ngembu parce qu'elle n'a pas eu son euh, sa chuchote là. tàngal mantu assemblée mooy ñëw di ñu wutal ay clients yu ñuy dajalee di wax non au troisième mandat. waaw mais mais est alors honorable est-ce que. ñoo ko ko dàq ma ne. oui bu ñuy guerre. alors ñu ñuy tëj di ñu tijji. Aminata Touré dafa waroon mer ca commencement ba parce que ñoo ngi tëj nit ñi dafa waroon mer parce que exil euh, Karim Karim moo tëral na moo tëral moo tëral euh, Karim Wade Aminata Touré moo tëral xalifa sàll moo ko jiiñ caisse d'avance Aminata Touré ku ñu complot boo dégg coow loo dégg ci état bi fañ ko doon toggee di ko fa créer mimee nga woon toog ak périgam alors di di di ay notes honorable Aminata Touré aujourd'hui elle gère absolument rien ci li nga xam ne mooy sunu ay bànqaasu réew elle se réclame de l'opposition bokku ci est-ce que elle n'est pas de l'opposition est-ce que mën nga ko ah, ci génne ma bokku ci opposition bi moomuloo ko opposition ne vous appartient pas vous aussi hein. oui mais c'est mais vraiment Sénégal neex naa ah, dundee. non na naqari naa dundee neex a dee. ah waaw yéen Aminata Touré ngeen bëgg jël dugal ko ci opposition Aminata Touré moo associé ak opposition dem ci ay manifestations dem di seetu certains membres de l'opposition xoolal xam nga yooyu yëpp ay tegal la l'opposition c'est pas seulement le PDS ay tegal 16 la ñun waa PDS kenn mënuñu tegal 16. Hmm. ñun waa PDS. kenn mënuñu tegal te li may wax nii li may wax nii. nangoo naa ko ci xam nga lu tax man yii ñuy wax ci àdduna bi safuma mm-hmm. nangoo naa ko ci gémmiñu mi Biram Souleye Diop mm-hmm. mu ne je n'ai aucune compassion pour Mimi nangoo naa ko ci gémmiñu Barthélemy mu ne je n'ai aucune compassion pour Mimi Touré et je sais qui dem pour Ousmane man de ci sama gis-gis man sama gis-gis vous ne verrez jamais ces gens-là traîner avec Aminata Touré parce que xam nañ ni Aminata Touré gëmul li muy def nit munul xas la matagul ñeenti weer mu ñëw toog naan la maa lay sàkkal nooy waxee troisième mandat amul parce que bi mu fi nekk di bi yàlla baax na ni maa doon làmmiñu Ousmane Sonko di làmmiñu xalifa Sall ak Karim Wade ak keneen ak keneen ci coalition wàllu sama page bi muy xas opposition bi maa fa ni woon riix toog. alors très bien maa ngi naan la amul benn bànqaas boo xam ne aujourd'hui moom jiite na ko est-ce que jëmm Aminata Touré kese parce que euh, quand on parle de l'opposition on parle de combat de principe maintenant est-ce que jëmm Aminata Touré tout simplement war na tax PDS bañ ne du bokk ci cette plateforme contre la troisième candidature de Macky Sall mais nous sommes une coalition nous vivons dans une coalition nous avons la coalition wàllu avec nous, avec des responsables de très haut niveau. Si l'opposition avec qui nous avons partagé tout, tout, préfère Aminata Touré que le PDS, c'est une question de principe rek. du dañ ni principe la ñun tamit question de principe la defe naa ni ñun on s'est opposé depuis 2012 ce que nous avons subi dans ce pays personne un opposant ne l'a jamais subi jàpp doomu Ablaye Wade tëj ko fii ci Rebeuss trois ans ñiy yuuxu ñëpp dañuy yuuxu ñu daw di leen wàllu ci kenn tëjagu ci ku du Khalifa Sall ndax tey ji am na nu mu doon demee ñu sàccoon doomu jàmbur tëj ko mais biñ ne bërët jëm ci Ousmane Sonko Ablaye Wade dañuy allez leen soutenir bu leen def benn réserve xam nga man Baye Fall laa bu Ablaye ne allez rek ma daw allez leen ma yenu combat bi bañ tuddee ma yaay Ousmane Sonko mhm. Ablaye Wade moo ni soutenir la sans réserve Parce que si vous laissez ce monsieur la fair il va emprisonner encore Ousmane Sonko. Et je l'avais dit ça. D'accord. ñu daw topp ci. kon jàpp naa ni ñun li ñu subir depuis 2012 ak tey jombaate na ak kenn koo xamante ni ci dangaa ci ciipar yow donc cëndum ceem yow amoo base Kaolack yow dem nga dakaar ñu dóor la xalifa Sall wañaar la nga dem Kaolack wuti fa base eh, eh, Serigne Mboup wañaar la nga ñëw nag. di nekk benn genre girouette fu ne nga taxaw fa gàddu sa saak ak sa périk ni alors je suis de l'opposition non elle n'est pas de l'opposition mer ngeemu la maa bañ euh, vous avez récusé Aminata Touré alors mais pour le combat de principe euh, contre le troisième mandat la troisième candidature du président Macky Sall quelle est justement la position du Parti démocratique sénégalais la position de, du Parti démocratique sénégalais du ma ko définir parce que toogaguma réunion ñu wax ma ni ma lii mooy position candidat euh, euh, parti démocratique Sénégal mais en tant que responsable moi je prends ici mes engagements et je vous dis que le PDS n'est dans aucun deal avec le, le parti au pouvoir pour lan ñun dinañ opposé wu 12 ans am candidat boo xamante ne Afrique Asie Amérique Europe tribunaux yi fa nekk yépp nee nañ il est blanc comme neige am ko mu bëgg Sénégal def fi lim fi def am bilan liggéeyandoo baayam pendant douze ans yi Ablaye Wade yor réew mi Karim Wade di daw ñu am un candidat bien portant feebarut damut làqut tëruwut sàcc nga ni nga ko jiiñ nga wër ba sonn génnewoo san francs nga xam ni il est blanc comme neige nga sërxal benn kayit ne da ngay def amnistie ñu ne la amnistie bi teg ko ci suuf parce que Karim bokk na ci liste yi ndax même bu doon par condamnation excessive exceptionnellement Karim peut rentrer dans les listes donc Karim ne fait pas partie de ce que vous voulez faire donc je pense que ñun ñooy la ñun ñooy cohérent kon ñun du ñu am candidat boobu ba pare xam ni ñi ngi jëm 2024 gis nga seen lii ñuy def ñoom la rek il Touré est envoyé dans l'opposition comme d'habitude ah oui pour diviser l'opposition. ñoo ko gën a nand. vous pensez que moom moo nandul ñun nand men vous pensez que ku ko yónni. dama ni Macky Sall la ko yónni comme d'habitude rek Farba Ngom mu déggoo li mu la wax. Mimi xam nga man xam naa est-ce est-ce que du peut-être euh, euh, relation bi nu mu mel cette relation très tendue cette guerre déclenchée entre yéen ak moom moom moo tax nga teg accusation yooyu ci kawam que ne dañu ko envoyé pour bu déglu opposition comme mu nekk trop au sein de l'opposition ma dëggal ma dëggal accusation yi. oui man maay député boobu dama ciy ñëw Mimi dafa ne c'est dire que les parlementaires mënuñ jël sax décision. Mhm. mais durant toute la durant toute la session budgétaire Mimi n'a pas voulu voter non. yoon les trois fois qu'elle est entrée à l'Assemblée elle est ressortie automatiquement daw man mii Mame Diarra je me suis chargé pour retirer li nga xamante ne moom mooy délégation de votam pour non la première fois elle m'a jël affaire bi signé wu ko ma woo ko ne ko signé woo affaire bi <laughs> muy ministère de la justice la deuxième fois daf ko jël signé ko jox ko ak euh, tas Thierno Alassane Sall qui a mis la lettre dans sa poche dem ak lettre bi ah. la troisième muy ministère de la justice ci la ñëwee wax ba pare xaw ma nee na benn kan la jox euh, lettre bi secretaire général ni gisul lettre bi ak bët. Mhm. boobu la ñu lijjanti ba indi vote boobu benn vote boobu la mës a voté contre benn vote boobu. lañ ko def si nga defee ni kooku bokkoon ci opposition bi dina ko. bu leen ñu fontoo ñun xam nañ ñu mën a wax. dañoo noppi honorable honorable tout à l'heure nga ne euh, bu fekkee opposition dañu préféré Mimi Touré euh, bàyyi leen yéen ñi nga xam ne pendant 12 ans yéen a ngi ànd ak ñoom vous avez posé également des actes au sein de l'opposition en le président Abdoulaye Wade euh, àndul ak kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fare opposition bi c'est-à-dire que joxewul consigne de vote boobu est-ce que mën nañu ko jàppee ci ne dangeen ngeen a jàppale opposition bi beneen à l'Assemblée nationale des députés euh, de du Parti démocratique sénégalais dañuy voter euh, pour parfois ci li nga xam ne mooy marathon budgétaire bi ci bari ñu ànd ci ak li nga xam ne mooy coalition benn Bokk Yaakaar est-ce que foofu mën nañu wax ne compagnonnage bi c'est sincère ci biir opposition bi. vote question de choix la vote liberté la gis nga man ci sama façon républicain man bi may nekk député de la diaspora mun naa contre mbooleem budget ba mu des budget des Sénégalais de l'extérieur dama koy voté pour dafa am enseignement dama koy voté loolu du tey de cinq ans laa la wax laa ko def c'est pas aujourd'hui que quelqu'un vient pour ma dire que da ngay changer sa attitude dama fa nekkoon ak Déthié ak ay Mbodj ak Ousmane Sonko ak euh, Girassi ak Bamba Dièye mon frère ak sama ay Aïssatou Sabara ah di voter oui quand je voulais di voter non quand je voulais. Hmm. maay tiim budget maa koy analyser man kenn du ma jox budget rek ma def ko ci mouchoir dem sànni ko sama kër sama bureau laa koy def. Hmm. la veille ma ñëw toog épluché ko xam lan moo ci nekk. wala avant ma ñëw jàng ko xool ko ut samay technicien ñu wax ma li ma ci arrangé ak li ma ci arrangé wul sama position républicaine moo may woy su ma neexee ma voté su ma neexee ma bañ a voté mm-hmm. vous avez man je vote quand je veux mm-hmm. je dis non quand ma liberté je suis député bi may xeex Pikine a taxoon may xeex tey jii ci année bi mm-hmm. su ma nee Pikine nangam ak nangam la dama koy matérialiser ba mën naa wax ni budget bi c'est le budget du Sénégal ma voté ko ma ñàkk koo voté su jàllee li ñu war a def Pikine dañ ko def loolu amul problème raisonnement la mais vote moom kenn du ma ci sikk mais man maa la ne Mimi Touré xamoon na ne su voté ñu dàq ko moo tax mu ragal a voté alors alors, alors honorable euh, parlant de l'élection présidentielle 2024 wax nga ne vous avez un candidat et c'est et c'est Karim Wade 2024 c'est bientôt que répondez-vous ba ñu annoncé que war nañu mën a euh, amnistier Karim ak ak Khalifa euh, ñu jàpp ne le parti démocratique sénégalais est en train de faire les yeux doux peut-être au président la République pour accélérer ce processus que nag seen candidat Euh, muy Karim candidature boobu ñu ñu ñu xam ñu valider ñu valider ko de façon officielle pour que nag ngeen mën a firi tàmbali seen activité ni mu waree. d'accord ne man xanaa man xamatuma lu ngeen bëgg c'est ici dans vos antennes que la chargée de communication du PDS a dit que. Mhm. Karim ne veut pas d'amnistie. loolu clair. waaw mais loolu est ce que kon ñuy wëlbati ma ne. est <laughs> <laughs> lan la wëlbatiku di def les yeux du Macky Sall déggoo li ma la nous avons un candidat clean. Hmm. blanc comme neige. blanchi par toutes les juridictions internationales ça revient tout le temps ce mot deal entre le PDS ak Macky Sall revient tout le temps. ma ne ki koy wax a ko xam. dama la wax damaa commencé ca ñu commencement ba. ca ñàkkoon laa commencé <laughs> dama ubbi commission bi commencé ca ñàkkoon ca fàkkoon léegi maa ngi ci maa ngi ci nàkkoon dama la ne sa Seck moo njëkk a tudd le mot deal maintenant c'est lui le mburoog soow nous nous restons constants avec l'opposition mm-hmm. ànd ak yeewi askan wi liggéey tëral vingt 27 députés ànd ak ñoom di xeex loo gis nag àndandoo la ak yëg-yëg yenn saa yi nga comprendre que ni. nous avons des divergences aucun. motion de censure bi rek moo ci mujj. Oh, yàgg amuñu divergence. xam nga lan mooy sa divergence ak nit ma ne dafay kajoor kajoor Përi Njaay boo fa demee dañ naan magum lëndëm ku ko yëgut mu yëg boppam foofu rek lañ ko teg booy def dara nu war koo waxtaane te waxtaane wuñ ko kii danaan nañ ci teeylu kii ni nañ ci jàpp kii ni ah nañ ci jàpp suñu jàmbur bu ñu paree ñu woo président ndax ama ndax nag may saag maa sàmba saag ma dem ba borom jam-jam ci ramaan kenn du moom mu ngi fii ci les dents de la mer di la dégg barki dem la jëm jëli ajaratom bu baax bi ajaratu Viviane Wade ñëw toog borom ne ne ficha ñëw teg ko fii xam nga lu mu lay wax fet li ma wax la parce que nit da ngeen di respectente respecter l'opposition autant comme il vous respecte mm-hmm. fet ça et comment naka nga jàngatee cette opposition la bi nekk di dundu xëy na ñoom nuñ ko waxee lu metti ak fi ñu jëm perspective 2024 jàpp nañu ne déjà ñoom bëgguñu le président Macky Sall bokk mais euh, amaguñu lu leer sax ci kan moo war a bokk ci élection 2024 ci démocratie bu mel ni Sénégal ban lecture par rapport à ça. mais prends-moi un exemple rek avant 2012 avant 2019 maa ngi woon dans tous les plateaux di défendre la la la participation de Karim Meïssa Wade nga matal parrainage déposé ko ma Omar Sarr ànd keroog conseil constitutionnel déposé les parrainages génn ah ñëwaat mu jékki-jékki ni la bokkuloo. Hmm. le système de parrainage Mimi Touré l'a toujours défendu. je me rappelle que Mimi Touré s'est battu avec. Euh, Malick euh, Gakou ah Malick Gakou. Mimi Touré qui es-tu ay Mimi Touré qui es-tu. dépassé nañ Mimi Touré. barki démb nga xeex ak Malick Gakou ci parrainage te parrainage tey moo fi moo moo fi téye candidat yoo gis mm. te elle a défendu mordicus que ni le parrainage est valable te moom bokk na ci ñi tëgg système mu ministère de l'intérieur ba verrouiller parrainage bi ba di sotelé nit ñi ci fichier bi mimi mu taxaw tey ci combat bu légitime légitime jàpp ne Macky Sall amul droit am sañ amul sañ-sañu troisième candidature bokkul ci opposition bi combat boo xam ne yéen ne me le fais pas redire quand mm. mimi mimi kii keroog bu ma jëlee parole ci ci candidature Karim Wade gii bërki démb mi ngi toog ma ne leen dafa am ku ne Karim Wade a payé ay xaalis ñu dugal ko ci état du Sénégal xaalis boobu ñu fay ministre des finance Moustapha Ba tey am naa droit laaj la ci ban loi de finances rectificative nga dugg ndax booba yaa doon directeur du budget tey yaay ministre des finances te ki ko waxoon na nga fi toog cinq minutes après damaa gestu seenatuma la folarde mi mi Touré hmm. yàgg naa waxi toj toj ñu di ko ci bàyyi waaye na xam ni Karim Wade ci réew mi am na fi yaay am fi bàjjen am fi nekk am fi pantre fii la. alors est-ce ko waxee dara dinañ ko tontu. est-ce que est-ce que li amoon en 2019 du amaat en mhm. bi Wade di wax ne joxewul consigne de vote ngir kenn ci candidat yi. jusqu'à jusqu'à présent jusqu'à présent euh, xamaguñu ndax Karim Wade sera candidat ou pas cette loi d'amnistie bi ñu doon wax. fii ñëppay bokk Macky moo dul bokk. awe ah oui fii ñëppay bokk Macky moo amul droit bokk xamul tax Macky amul droit bokk Macky di pare na te nag dama ko gëm nag xamul tax ma gëm ko tooroo doole nee na su doole su fi doon ma ne lu mu wax nee na gëm na ko nee na moom jeexal na du bokk donc ku dul bokk nag. alors moom amul na moom kan moom di bokk amul droit bokk ñu taxaw ci kaakar moom moo bokkul ñun di dinañ bokk. ñun ñun xalifa ak ak ak kii ak ak Sonko ak Karim Meïssa ak Malick Gakou ak ñëpp rek ñi bëgg a bokk ñëpp nañ bokk. Macky moo dul bokk il va organiser de ñun am na si duñu boole. ñun danoo bokk. non fichier bi moom. mais am na si moo leen moo tax ngeen di bokk te nee leen am na si. am na si mënuñoo boole yow foofu nga xamewul. Hmm. juridiquement parler ñun dañoo bokk.

toogal ba xool rek euh, xam nga loolu appellation loi bi mais ci biir changé wuñ fa dara. quand on parle mais mani la gis nga que am amagul dara euh, est-ce que loolu yéen tiitalu leen que ne bu fekkee ne baraluñu loxo seen loxo ci wàllug loi d'amnistie bi Karim ne pourra pas se présenter en 2024. du loi d'amnistie moo ñuy boole ñun bokk nañ ba pare. ci loxoy Macky la nekk nag de seen candidature ak. bu fan ngeen ko teg pam nu mu leen wóoree ni ma ne ñun fiñ ko teg xam nañ ko Karim Meïssa Wade tous les yi nga xamante ne ñooy ministre de justice commencé ko ci sama el dégouti gi taxaw nañ fii ni la Karim Wade n'est pas de ses droits civiques et politiques waa léegi loolu leen bëgg juridiction internationale yi ne Karim Wade jeexal na amul dara luñ koy toppee dañ koo tooñ mimi na dem lijanti deux cent milliards yooyu mu sous yi nga xam ni président Doudou Wade toog na fii wax ko ne la bu ma ko laajate mooma na ko dem lijjanti ñu waxuñu fu mu ko dugal nañu wax fu mu dugal loolu loolu te ngeen bàyyi candidature u may sa Wade day bokk nun dañuy bokk Macky moo dul bokk ñun nii ñoo ngi liggéey moom moo liggéeyul. d'accord alors euh, parlons de tout à fait autre chose Fatou Abdou euh, ci euh, scandale à de milliards ñuy dégg dans ce pays honorable ngeen nekk député à l'Assemblée nationale Euh, ñu bëri jàpp ne assemblée tey xëy na deful liggéeyam par rapport ak scandale yu bari bari yu ñuy dégg à de milliards saa yu ñu xëyee ci journaux yi ñu ne diw luubal na nangam diw euh, xaalis ba mu ba maanaam xaalis ba mu leboon fa mu ko jaarale awul yoon yéen ngeen nekk ay député représentant du peuple quand à l'hémicycle seen taxawaay par rapport à à tout ça. xam nga taxawaay ñu am rek mooy. scan ñun sànq euh, Fat Abdou wax na ko le président de république. détient la clé de voûte de l'institution. Mmh. C'est lu qui nomme au poste civil et politique et militaire. donc je pense que tey scandale bi ñu fiy tudd rek te di ko tudd te di ko tudd ci kenn nit mooy euh, Sall de Mbao l'ancien ministre nga xamante ne wax nañ ko ci affaire u euh, 45 milliards. 45 milliards des armes li ñu ci war a def def nañ ko euh, des demandes d des, des lettres d'explication ont été envoyées au ministre en place Alioune Ndoye euh, je pense que parlement